mais buñ la jiyee xaalis booy sàcc dama di ma oh. Amady di sana ndey la de waroo. Oh! mais Ndiaye sama doomu ndey sàcc. sat. waaw waaw suba il faut ma sàcc ma ne ñu jiñ ma sàcc. nga jàppale Amady. waaw. astafurlah. nga jàppale ko. waa nga ni mais fuuy nga léegi nag Ndiaye. waaw waaw mais yow tamit nag sama xarit nga. léegi léegi fuuy nga. ah yow xam nga lépp. Mourou un muy bëgg a bu président Modou Gueye rek lay wax ni la ilaha illallah moo gën a gaaw barke yonent bi du moromu kenn ah man kenn rek laa bëgg Modou Gueye mais looy looy looy wax njàpp nag ci ci boo ko doon conseil ci moment bi waaw loolu da koo manqué waaw waaw ya, moo tax ma laaj la da koo manqué xale eh? la di fo comprendre lul moom comprendre lul de day fo mais nañ ko xëcc di ko wax defeel nii defeel nii defeel mais lu ci xol bu rafet la am bëgg di waaw pour moom groupe yëpp benn lañ ci moom. ndeysaan man de moo tax muy baali. boo liiree nit. boo liiree nit. moom dafa jàpp ne groupe yëpp ñàpp dafa baax. xam nga papa Youssou Ndour dafa wax barki démb lu am solo. daf ne dafa bëgg ku joxe cër Youssou Ndour nee na ñu joxe cër te cër ak worma ak teey ak baax dafa important ci jamono jii ñu ne kilifa dafa baax ñàpp bu mu gis papa la wax. papa wali papa Siri papa papa nyai papa Mbadi mom loolu la wax ñëpp man dama yërëm ñap dama ko yërëm. mais il est temps ngeen wo ko conseil ko. parce que xalé la ta dafa am dafa am walu ci aar bi. ndax na limi def ma sha allah. euleug man na nek Papa nyai euleug man na nek amadi badia ni ni Papa nyai la ko Amady gay voilà man ak amadi badia amadi badia ak amet boy ñun lañ faan loolu la yalla def ñun lañ faan. mais bàyyi ñu kii ma dem géej ji jàpp ci rek. mais bala ma bàyyi nag defal ndànk. sama goro bi xam nga lu bëri ki démb. waaw déggat nañ coow ci soo biis. waaw ci diggante Mbaaco biisu Ngone. Mbaaco porte na ko. waaw ñooñu nag ay xarit lañ. ñaa ñooñu tey leen ci de ñooñu ay xarit lañ tey leen

waaw bien ñoom ñaar ñëpp ñoom seen yëf xoolal bu ñu waxtaanee rek jubóo. waaye bàyyi de ngay def ñooñu buñ mbaati xol bi daa rafet euh, sama jigéen bi xol bi dafa rafet. biisu waaw biisu ngoone waaw. génn leen ci jàpp leen ci. waaw man moo tax ngeen seytaane yéen. ah de. léegi loo tuddee seytaane. li laaj rek. <laughs> li ñuy wax nii kere wuñ ko de. non non yow sama doomu ndey. waaw nag ay fee yu am la. waaw dëgg la moom lu am moom fan yii moom xaw ma lan la. waaw man xalaat fu ñu dem naan bi ma bayra may ma bayra rek. waaw sëriñ bu ñu dem bayra lay ñaan. te bayra égal coow. nan def ne man. waaw wàññi bayra bi te wut xaalis. saa yu naa xaalis de. da ngaa jéem ko war ko. non yow tamit nag. waxante gën a gën a xam damay rek. sama interview bi moom dama neex ma ak yow. dañuy fo léegi nag jeex na dimbali leen ma rek doy na. laaj benn am na lu mat huit turandoo xaw ma set. yaa ngi ma ci gën a neex mooy bi ma sama taawu papa tuddee. beneen bi bi ma gën a naqari nag luñ fekkewul luñ fekkewul jariñam kulu kulu kulu bu Pikine waaw kulu waaw oh. kooku aw ma fayam doo waaw mais génn na àdduna xam nga mais yàlla la moom kenn du xëccoog moom man am naa witti rodo Pape bi leen fekk man Papa Ndiaye Gambi bari na bari na bari na bari na ma lim ñëpp. Ameth ci moom nee na du la tuddee doom. non Ameth moom boppam la ma tuddee moo tax mënu maa tuddee doom. nee na sa jikkoo ko neexul. non sama jikkoo ku gën a neex ci àddina moo tax mu ñëw ci man Ameth moo gën a xam koy Papa Ndiaye. mais gis nga melul gis nga Papa Ndiaye mii mooy mooy rocc yi fexe na ba indi Ameth coow lii ñu am ci Amady yëpp Amady la bëgg a indi moo tax. coow Amady woo na ma tey. Pape moo ne ma mi moo ne ma mi parce que Wally dafa bëgg a rotti Sidi Diop bagage yi fa waaw man tamit man tamit déedéet man tamit déglu ma rek man maay wax. man tamit may rotti parce que Benjamin woo naa ko tey. eh <laughs> mbéy si nag nee na ma paap man bu xaalis bi ñëwee ma ñëw. Zobil <laughs> yow yow yabatoo ci Zobil. ci famille ngay dugg. mais manière bi moom ku compliqué la. Eh. ma ne ko mon frère il faut venir mu ne ma non il faut appeler Wally ma ko non non non. Cheikh du gaaw ñëw de. ah bon ma ne ko Cheikh mu ne ma non il faut appeler Waly. mais bu Cheikh Niane ñëwee nu ngeen def maa sowaane. Ah noonu ngeen bëgg a def Waly. en tant Waly bëgg a def Sidy ñun loolu waaye na neex ñëw nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kàttan bu néew la wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe yi euh, gaaw a daanu seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.